TV bu nekk euh, Facebook di def liggéey bu am solo mucc ayib jàppaleen ni kooku xeetu Mollah Morgun la rek ñoo ñoo bokk benn vision bokk benn philosophie loolu moo tax te tant que mi ngi nice damay bàyyi noonu mais bët bu wàccee rek damay génn ne du am na keneen ku def benn Mollah Morgun bic biir shop xam nga Mollah Morgun gi shop koo xam ne <laughs> kii la bokk Abdoulaye Macky Sall la bokk Mollah Morgun bi shop xam nga biir biir biir cop xam xob Euh, mais dama amul jorom mais kooku Macky Sall la bokk donc euh, voilà donc Mollah Morgun yi yi nuru man idéologie ils sont bien ils sont de bonne foi voilà quoi donc euh, gars yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier bu baax de leen wax ni le combat continue nañ focus rek nañ focus sur l' essentiel voilà xeex moom boo gis am na sarax am na fooy toll ci xeex bi mënoo contrôler man mënuma fi nekk ndax damay contrôler page yi ana Mollah Morgun yeeg nanga man nanga mais man affaire internet day metti sama bopp loolu moo tax mënumaa am page yu bëri bu ma ko amoon sax damay dof parce que li may recevoir ci ay message ci àdduna man pour man à part Macky Sall ak Sonko <laughs> maay la euh, la troisième personne boo xam li may am par message par jour ak appel doomu aadama amu ko Sénégal même premier ministre sax wala Amadou Ba sax amu ko bu ma la wonee samay samay appel samay message par seconde à la seconde <laughs> li may wax ak yéen sama téléphone yaa ngi sonné sama téléphone yi numéro bu ma am ñu loqati ñëw numéro bu ma am ñu loqati ko xool xool xool leen xoolal di ni ñu fi toogee nii rek lépp appel manqué la lépp ah, gis ngeen appelé lépp appel manqué xool leen doomu aadama yi diggante boo ne salaamaaleykum balaa ngaa pare mais lii mun naa ko ngeen foog ne lii li mu naako ko ci àdduna lii mun naa ko wuy kii benn bi kese la de lii mun naa ko wuy est-ce que du jeex de c'est des millions de Sénégalais qui veulent ma parle en une seconde nag ñu la ñuy ñëwandoo c'est des millions de Sénégalais qui veulent me parler te lii benn WhatsApp whatsapp bii tamit bii mi ngi nii ña nga ña nga ña nga ko ci teg ñoom tamit whatsapp bii te de waxuma la ak bii may defee live beneen a ngi nii beneen a ngi nii beneen a ngi nii beneen a ngi nii beneen a ngi nii lii rek moo ci toppee dee appel manqué yaa ngi nii beneen a ngi nii appel manqué yaa ngi nii beneen a ngi nii ne la à part Macky ak Ousmane Sonko bi ma yaakaar amul Sénégal ko kuñ ci kuy recevoir comme man ci xeetu appel waxuma la nag messenger yi nag doog a ñëw nag messenger yi ne tulleeg mal la ñuy wer ñi ñu ñu TikTok ba nag kii Facebook euh, Instagram ba ñëw <laughs> yéen xamu leen nu may souffrir sax <laughs> <laughs> yàlla baar na lépp mission la lépp mission la boo demee ca bii euh, euh, messenger bii léegi léegi day day boppam sax day fattu day fattu day fattu nga dem ci messenger bi man ay million doomu aadama ñoo may woo par jour góor jigéen mag ndaw meer paa sëriñ xut bu samaan lu nekk may woo ci àdduna barke alxuraan billaahi amul heure heure booy nalaw junneeg may woo heure bu ma yeewoo junneeg may wo heure bu ma yeewoo fokk ne junni yu ma ak junni yu tegaloo ak junni yoo xam ne moment bu may wax nii ay ay appel la ngi daw nii moment bu may wax nii ay appel la ngi daw barke alxuraan maa ngi wax nii ay appel la ay appel la ngi takar moo tax foo ñu fekk sama portable dama koy mite portable baa ngi nii dama ko mite mi ngi nii ci kaw mite laa ko def mite parce que boo ci toppee dee dama koy mite mite rek bii tam dama ko mite lépp laa mite bu ma ci topp bii tam dama ko mite ak bii may man rek maa xam pression yu may am ci àdduna man rek maaxam xam nu ma fu ma doomu aadama yi teg man rek maaxam nu ma doomu aadama yi di dégloo man rek maaxam lu may daj mais sant yàlla rek moo tax man la mënumaa ubbi ay page yu bëri ay Mollah demal TikTok Mollah <laughs> moo ko ubbi woon dee de bu ma ko ubbi woon <laughs> Mollah Morgun Bershka la <laughs> Mollah Morgun Bershka mu ne nee na affaire bi sama page boobu noonu waa ji benn gel moo ko xam naa ko nag gel bi mi ngi dëkk Gibraltar ndeysaan xamul ni sax jàpp naa ko <laughs> dem naa ba informé wu ba xam waa këram ba xam ko moom jigéen jooju am nag ñun nag on est très informé boo ñu buggee il infiltré dañ lay jàpp kooku Gibraltar la dëkk jigéen la moo créé Mollah Morgun Birso bokku APR di di ndawu Antoine ñàkk jom Antoine ñàkk jom seen kër la màggee seen kër la doon fréquenté ak këru góor jigéen ba muy jigéen nekk fa dëkk fa ma xam turam xam santam lépp li lijjanti naa ko yor tamit déggoo lu wala ñun ñun ay renseignements généraux lañ benn fan laa def faatu ndaw la tudd faatu ndaw faatu ndaw jàpp naa la bu yàgg <laughs> <laughs> faatu ndaw nga tudd dëkk Gibraltar nekk coggu Antoine ñàkk jom yaa dem créé Mollah Morgan Birch Birchko xaw ma Birchko <laughs> sa kër yëpp laa infiltré <laughs> faatu ndaw yow man kenn mënu ma jëw Sénégal renseignement généraux yi laa téye loxo dossier bu ma la bëggee lijjanti ci benn ngoon laa lay lijjanti benn ngoon benn ngoon ma lijjanti la ba mu ma indilee paas moo laa Morgan biir soob yeeg ne muy wax ci Macky Sall di tagg Macky Sall ma ne kii kan la jël sànni sama gars booy li laa bëgg leen ma ko sama gars yi kan la dañoo dem loqati côté côté ñu indil ma ne ma kii mi ngi tudd faatu Ndaw dëkk dëkk Gibraltar xam na Antoine ñàkk jom foofu lay fréquenté xam nañu bu baax famille yooyu xamante nañ seen kër la doon nekk magam lii la tudd renseignement lépp ba photo lépp mayor ko ma toog ne tekk di la déglu <laughs> parce que amagoo nekkagoo danger parce que boo nekkoon danger rek ma won la ni dëkk boobu Sénégal am naa fa kattan am naa fa mën-mën sama loxo yegg na ba foofu mais dama la par zéro yow Fatou Ndao xam naa dina la bett tey xam bu yàgg <laughs> bu ma jotee information du léegi sax <laughs> euh, mais man. sekku ma ko yow Antoine ñàkk jom laa ko seqal te dinaa ñuus maamam yàgg-yàgg voilà on le surnommé grand ndaw waaw waaw ah, boobu ah magam foofu la Antoine doon fréquenté ñoo naa ko bu yàgg ma la sama information lu jëm ci man moom dara kiiwuma ci quoi ba ci démb démb démb <laughs> te ñoom bañ a wax lépp rek oh, sama gars ay ñu baax a ngi ci administration bi ndeysaan nag ñu baax a ngi ci administration bi hmm. démb ay quatre heures du matin ñu ngi ma woo quoi Mollah ñëw de ma ne non grand ñëwaguma léegi waay waay ndeysaan ay commissaires yu baax ah Sénégal am na ñu baax nag parce que alxuraan am na ñu baax e quatre heures du matin Mollah bul ñëw de. Mm, non non ñëw gu ma ñëw de dégg benn wax ba ñëw walla gars yow rek lañ xiif ñu ngi lay xaar fii xaar yi méttee métti métti boo fi duggoon tey nga xam ni lépp dëgg la nga xam ni yàlla julli la la sant te ay kilifaay wax ak man nii barke alxuraan ñu nekk ci police bi dama gars yi fépp lañ la xaaree ñu boo fi duggoon dinañ la toroxal xeetu toroxal boo xam ni di nga xam ni lépp dëgg la gars yi ñu ngi la enal dencal la réñoo nañ la fi waxtaanee leen la dama boo yaakaaree ne yaa ngi ci amnistie bi boo fi duggee nga xam ni billaahi di nga gedd sa njureel sa njureelu ndey lu mu daj ci yow di nga ko gedd te loolu démb kese la démb ci guddi démb ci guddi barki alxuraan ne yàlla dafa yéeme ma ma jóg naafi la tëdd ma naafi la lekk kii maafe tëdd rek gént <laughs> bagage yi yàlla dafa garaaw de barke alxuraan ma gént ci benn benn kii bu xat ay oto ñoo rang nii ak miir fu xat ma dugg nu ma duggee nii rek benn gangu policier ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi toog noonu wër benn benn def benn jotaay bu ngand ma dox nii bëgg a ñëw ci ñoom rek ne non attends xaaral ma delluwaat may dellu benn policier ñëw téye na ma kaay kaay kaay ma ne ko non non non maa ngi yor portable dama doon live live mi ngi mel ni entre miiru ay miiru kër ay oto yu rang ci tali bi may jaar diggante oto bi oto yi ak miiru kër miiru kër yi may jaar noonu pour dem di live nag di wax ak sénégalais di live nii di live rek jàkkaarloog gangu policier yu toog wër ma gis leen ne ay eh, may live maanaam ay eh, attends ma ñëw rek benn policier jàppee ma ginnaaw na ma kaay kaay kaay yow lañ doon wër jàpp nañ la ma eh non ñoo kaay kaay kaay man leen noonu dama doon live mu ne non fayal live gént laa la wax de fayal live bi fayal live bi fayal live ma ne ko non grand non non live bi sama téléphone matt ma ginnaaw ginnaaw la ma mattee digg ginnaaw dafa ma matt ci ginnaaw matt barke alxuraan di ma dugal ci poste police démb rek te commissaire moo ma woo démb quatre heures du matin ma jóg naafi la naafi la lekk tëdd gént police Sénégal barki alxuraan <laughs> ma yow ndànk santaane balaa maa julli ji ajuma ñu saraxal ma non c'est pas un bon rêve ñu saraxal ma def naa sarax bi ma génne lu weex ñëw toog barki laa ilaha illa barki ajuma ji wala <laughs> bu ne wala man informé nit du ma informé ci sama bopp man moo laa ñëwul noo jeex na génne nañ Sonko non ñëwul <laughs> moo laa xam na nu mu diisee ci loxo ñooñu moo laa xam na nu mu yàqalee ñooñu moo laa xam ne nu mu leen sonnalee moo laa xam ne danger bu mu doon ci kanamu euh, autorité de la république bi moo laa bàyyiwul tey bàyyiwul ëllëg mi ngi ci combat moom xam na dëgëraayam ak diisaayam <laughs> waaw loolu saytaane la mm-hmm. saytaane la waaw loolu saytaane la def nañ ci sarax def nañ li ñu war a def te loolu ab commissaire bu mag Sénégal moo ma démb ci guddi di ma xamal ni gars yi ñi ngi fi ba léegi ñi ngi ñi ngi yor seen dossier yow gars yi dajale nañ plainte yu bari plus de plante mi ngi fi de la xaar yow moo la te autorités dañ yow rek lañ bëgg nga ñëw nax la ba nga ñëw ñu ne la non loolu amnistie la ñii nag c'est des c'est des plaintes personnelles yuñ la plainte douze plaintes nga waroon ak toppante ak ñoom quoi ñi lay jaabante ay police di tëj fii paquetage fii nañ ko éliminer nañ ko posone nañ ko nangam ak nangam nañ ko nangam parce que ña ña jàpp buñ sàccee élection yi Mollah dina fi nekkaat di leen xeexaat ak yooyu xaar ñu éliminer ko Mollah xam na boppam Mollah du ngaaka Mollah kenn munu ko indi Sénégal te ñun gañe wuñ du mu taxaw Sénégal ci nii il faut ñu gañe il faut ñu nangu gagner élection yi kese boo leen ma buggee gis teg ma tànk teg ma bët élection yi lañ mun a gagner buñ ko gañewul duma fa musa teg tànk suur naa Sénégal loolu leer na sël la libération du peuple sénégalais moo indi Sénégal leneen du ma fa indi bu boobaa nag fukk dërëm duñ ma ko mënal mais sama combat laa maa ngi continuer de ku may xaar Sénégal gisoo ko ma ultra informé duma ma bëy bu ñuy fowee di paqueté séddoo lekk rey xaalis ñu kii ko non <laughs> sama gars yi peace love ñu fanaan ak jàmm jarama nekk leen jàmm Arnold respect ma brother fire street big up big up big up to the maximum yéen nag ay ay ay ndaanaan ngeen quoi ye ay ndaanaan ngeen ne aw ma seen fay bu muy neex ak bu muy naqareeg lépp lu ma mës a def dama leen cee mës a gis quoi yee ñoom Samba waaw Samba nii ni Kumba ñoom ñëpp gars yoo xam ni dama am respect yéen ñëpp ah soxna yi xam nga Zulaykha Saane gars yëpp nga xam ni daal mu Pape Modou Pape dama leen mus a ci sama sama job quoi gis ni xam nga am ngeen ci man confiance am ngeen man tam cër boobu laa am ci yéen quoi eh, DJ Buzz SN muy metti muy naqari muy neex yëpp da ngeen taxaw lamin Biaye you know dama leen dama leen remarqué quoi fu ma te te vraiment amul lu ma xam lu ngeen xamul ko vraiment mais jo cër gi ngeen ma jox daal man mënu ma leen ko fay moo tax maa ngi leen di ñaanal quoi di ñaanal tamit yenn soldat yoo xam ni saan ñi ngi doon seetaan ñu mujjee làqu ñi ngi leen di ñaanal waaw ñi ngi leen di ñaanal bu baax ay patriote jóge nañ fi yoo xam ne doon nañ ñu suivre doon nañ ñu seetaan doon nañ ñu voilà quoi am na koo xam ne tamit bugg naa ko gis Euh, réer na ma nag yàgg na mais bëgg naa ko gis trop xobatuma fu mu nekk quoi vraiment parce que gars yi du ma leen du ma leen jiiñ sax ne ñooy rey gars yi wala dara mais dafa bëri ay soldats yoo xam ne ils ont disparu quoi ci combat bi am naa ay soldats yu disparaître am naa ci ay soldats yu ñu rey am na ay soldats yu feebar feebar yu gaaw dee euh, ndeysaan ki ma joxoon sax information bu tëmm sama inspecteur boobu moom it noonu la dee dee bu gaawaay yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana san dee bu gaaw a gaaw a gaaw gaaw waaw moom moom lañ liggéeyoon ci document Antoine ñàkk jombi bi quoi opération rëbb bu dëmm Antoine ñàkk jom bi mu tam noonu lañ noon la disparaître quoi ki nga xam tam moom laa liggéeyaloon ci photo bi moom moom monté loon photo bi moom at il a disparu comme ça quoi mais yooyu yëpp dinañ ko rechercher eh, bugguma ci sori photo boobu noonu ndeysaan mu monté loon ma ma nekkoon ci samay recherche yu graaw nekk ci démolition opération démolition yu graaw booy bu ma ko joobaloon moom ba nii gisatuma ko ndeysaan ba nii numéro boobu woote naa dix mille fois mënuma ko jot envoyé naa junni audio benn flèche lay def quoi mais jeexagul yàlla bu mu dee rek yàlla bu mu bu mu disparaître waaw ñoo ñëpp soxla nañ leen c' est des gens qui ont trop trop trop combattu pour ce projet la c' est des gens qui se sont buy metti waaw mais ça fait longtemps woo na woo naa ko maintes fois ci numéro boobu mënatuma ko jot envoyé naa ko junni junni audio benn flèche lay def xaw ma xaw fu mu jaar daal xaw fu mu jaar wala fu ñu jaaral ak moom mais yàlla baax na ku ma doon jàppale torop torop tam ci information quoi vrai jàmbar mhm. vraiment dimbale na ma trop surtout ci euh, ki nga xam ne moom mooy baajo Camara mhm. moo ma doon toppal Badio Camara nag vraiment toppaloon na ma Badio Camara torop géréloon quoi xaw fu nekk daal mais yàlla na fu mu nekk daal yàlla doon jàmm quoi yàlla na doon jàmm maa ngi koy ñaanal xam nga di ko maa ngi maa ngi jaaraale ci sama live bi di ko wax ne namm naa ko daal namm naa ko wër naa ko fu ne xamuma fu mu ne euh, fépp contact yi ma yëpp jéem naa ko mais di ko xamal ni daal doom day namm naa trop billaahi wallaahi xaw ma foo ne mais feeñul quoi feeñul feeñul munu ma nalaw ndax yow feeñul gaayen feeñul def ma def ma signe quoi def ma signe war na ma tu en vie maa la koy ñaan yow mi nga xam ne jàppale nga ma bu baax ci xam kan mooy Badio kamara doxal ma ko ay mission yu bari yi nga fa dox li nga fa def yëpp topp buñ ko topp boobu ba léegi li ma ci taxaw maa ngi lay ñaan nga feeñu ma quoi maa lay ñaan nga feeñu ma foo nekk rek ne ki nga xam ni moom moo ma defaloon photo bi ki nga xam ni moom